ndaysaan Garga 2 ngi noonu ci digg géew bi adversaire bi ñëwut woo nañ arbitre bi woote na ñaari woote ma ngay daw moom Garga 2 arbitre bi woote na ñaari woote ndaysaan day woote ñetti woote ñëwul ndaysaan nu ñuy def règlement bi nag moo santaane lii règlement bi bi moo santaane lii règlement bi moo santaale lii règlement bi moo wax bu sa adversaire ñëwut dañ lay disqual disqualifier adversaire ba ndaysaan mbokk yi lamba ngi nii Garga 2 ak Mama Lamine arbitre bi lu muy def ndaysaan Garga 2 ak Mama Lamine arbitre bi yëkkati na loxo Garga 2 yëkkati na loxoom arbitre bi joxe na ndam Garga 2 nee na supporter jeex na dem leen ñibbi Ibrahima Ibrahima loo loo sa supporter loo leen wax xanaa da xam ne nan waaj Garga moom ñi ko soxla bari na. léegi coono bi nga daj ci làmb ñëw ba fii bëre woo actuellement Garga 2 fan la jëm ñan la bëgg a bëre. naka naka naka lu yàlla la xaaral ma jël drapeau bi. foo jëm ñooy bëre. ah Zarko dégg dégg naa daf maa dëkk. Zarko dégg ñëwee. du ñëw dafa ragal. léegi Garga dafa ragal. moo dox. xamante nañ moo tax. yow ñeme ngaa jël avance bu subaa nan avance bi. ah du moom ma laaj. nee bu ko fay 500000 mu bëreeg man. mu bëreeg man waaw. moom laa xaar man 100000 ma bëreeg moom. ci tey ndax. barke yàlla. waxal ci ah, la suñu borom moom kenn ci dara quoi. waaw